jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb ñoo ngi leen di nuyu leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax tey nag ñoo ngi fii Maris ci fi nga xamante ni mooy wasaare dalal fi ki nga xamante ni jeune promotrice la ñu koy wax Fatou Balla Gaye mu nekk na koo xamante ni mbokk yi gan la ci làmb waaye du ma ne su ma nee gan la ci làmb ci bëredo bi laay wax ndax yàgg na ci làmb doon na dox ay com doon na taxawal ay combat yoo xamante ni ay mbapat lay nekk ren nag mu fas yéene ñëw taxawal combat bi nga xamante ni mooy dox ci diggante Clémenceau ak sii di Sidi Diamaguène mbokk yi jox na jot a taxawal combat am def ay présentation am ba combat bi di waaye jib si Covid bi ñëw dagg lépp moo tax nag tey ñu bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci combat yam xam jotoon dugal xaalisam ba fi mu toll nii làmb dafa metti te na a combat amul sponsor làmb ji yàqu na ñu bëgg waxtaan ak moom ci lu ba bëri ak làmb fi mu jëm xanaa dama koy bàyyi mu nuyoo ñu wéer waxtaan wi Fatou nuyu naa la. waaw salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu mbokk wasaare. Euh, di nuyu axlu làmb yëpp euh, di sant yàlla bu baax a baax di julli ci yonente bi sant suñu ñaari waajur fedde di suñu cofeel ci sëriñ Babacar si di fay bu baax a baax. Mm-hmm. Fatou naka nga gisee làmb. waa làmb euh, métti na te tamit li gën a tax làmb avancé wul mooy ñàkk a bi ña làmb ñàkk booloo. balaa ma dog la tuuti sax balaa may ñëw ci loolu lan moo la dugal ci làmb parce que jigéen daan nañ gis gisoon nañ fi Ndeye Ndiaye Tyson te ñu ñoo gis ki nga xamante ni mooy Fatou Balla Gaye lu la poussé ci làmb. waa làmb dama doon supporter euh, di supporter ba mu yàgg nag comme bëgg sama bëgg-bëgg la. Hmm. may lii daal dinaa ci dugg bien vrai que affaire góor la mais jigéen bu gëm boppam tamit mën na ci gis boppam. Hmm. ci laa duggee ci làmb di tëgg ay mbapat di organise ren nag ci laa demee arène nationale bëggoon fa organiser la cinq août yàlla dogal Covid bi ñëw. Hmm. ñu ni mënatul nekk ci lañ taxawee nii di déglu. ok da doon tëgg ay mbapat mbapat yi nga daan tëgg. naka la daan demee ay mbapat nommé la daan nekk wala mbapat tour danga nga naan teg tournoi rek nit ñi ñëw sëgg ba ku daan ku yóbbu finaal bi yóbbu li nga jot teg wala naka la daan demee. mbapat yi nommé la doon doon. nommé la doon nekk. mais ma ci gañee dara nag moo tax ma ne man damaa bëgg laa am. da nga doon tëgg mbapat te doo ci gagné. mu ci gañee dara ñi ma ko doon dëgg tëggal xam nañ ci dara dama doon perte rek. mais bëgg làmb daal moom ma bàyyi ci làmb ba fii may wax ak yow. mais ngay dugg ci da gañewuloo ci ba noppi du ci xuus di yóotu lu gën a mag loolu loolu dina metti de. waaw mooy gëm-gëm. Mm-hmm. soo gisee Fatou Balla Gaye osé nekk ci mbappat gañewu ci dara mu bëgg a dem ba arène nationale mooy gëm-gëm looloo waroon mën a tax nag axlu làmb jàppale ko mais dañu mel ni ku ko fàtte. ni moo tax may laaj à chaque fois licence bu góor ak lissance bu jigéen ba xam dafa am. fu ma dama koy laaj. amul licence bi kay benn yow mos nga dégg CNG fu ñu toogee ni promotrice da ngay dégg rek ñu naan ñi ngi masawu promoteurs yi nañuy wax ñi ngi masawu promotrice yi parce que jigéen ñi ñu ngi ci làmb yi jigéen ay way da ngay gis sax jigéen bu way ba mu neex mu jóg di bàkk kon jigéen nañ ci làmb nañu fàttaleeku ngir yàlla. mais est-ce que ci kuréel yi nga xamante ni promoteurs yi ñoo ngi ci. ah dëgg neex yàlla ma benn kuréel nag. ah lu tax danga nga dañ la woowagul wala yaa jógagul pour bëgg a dem bokk ci ñoom. mun maa toog sama ruq man ak samay mbër yu ndaw di leen ñaan ñu nekk ay roi des arènes mais ma si benn kuréel wax dëgg neex yàlla. mais gannaaw yaa ngi doog a dugg ci lutte lutte avec frappe taxawal combat yi yomb na wala. waa métti na parce que euh, ku ñu wax Omar Sall mooy monter combat Fatou Balla Gaye niñ naan xale ak xale ñooy liggéey moom mooy monter combat mooy seeti mbëri waxanteeg mbëri waxaale. su ko defee bu sottee rek mu envoyé ma seen photo ni ma monté naa combat bi ak combat ma ne ko yow loo def noonu la. Mhm. mais gannaaw da nga loon combat ba jub si ba combat bi ñu ne ñu ne ñu ne Covid bi ñëw na bi nga ko yëgee naka la la dund naka nga ko dundee te combat bi su ma juumu jóge si woon na. waaw xam nga maa ngi waroon tëgg la cinq août samedi li ma gën a métti mooy promoteur bi waroon tëgg dimanche. année année la tudd. Hmm. miinuma ko mais làmbam boobu dama cee jooy man. du ma ko déggee sama rongoñ danoon sotteeku parce que nga monté sa combat toog ba jouru làmb ji yëgoo ni làmb ji du am nga dem ñun la problème mu sécurité dafa metti CNG war nañu bàyyi xel ni promoteur bi day galéré sonn ba monté ay combat xamoo fan la jëlee xaasam ñoom leer na man ñoom yëgoon nañ ko avant dañ ko wax promoteur bi avant ne ko làmb ji du mën a ne ñu wax ko samedi ci guddi kon benn mbër du togg regroupement benn mbër du ngemb mais nga ngeemu ba pare togg say regroupement ñu ne la làmb ji amul métti na de. kon daal yow ni da nga da nga da da nga nekk ci place danga da nga jàpp su doon yow la ni mu lay méttee moo tax nga koy masawu di ko naqarlu. bu doon man la li ñu def aleen nii bu doon man la noonu la may métti ni ma ko ko jooyalee nii bu doon man la dinaa jooy jooy gën a rëy noonu. toog naa sama biir néeg jooy. ndax liñ ko def suñu waa nag nii naa ma ah, yow lii sa xaalis la woon yaa ko moomoon du ñu xam yow lan ngay jooy dañu yaakaar yow sa xaalis bi nga dugaloon war a tëgg la cinq août moo tax ngay jooy fekk promoteur bi ni mu def da ngay yow xëy na ni nga def ba am rek noon noonu la def moom tamit ba am galéré ba am rek dem investir ci làmb. mais lan moo tax nga commencé dalee ci mbëyu ndaw yi lu war loolu. ci ñooy samay xarit gis nga bopp bu tuuti. te dëkkee sedd moo gën boobu nga ne dëkkee mel man maa ngi si mbër yu ndaw yi ñooy am may am si ñoom weccet ñu am sama weccet daal loolu laa gëm man Fatou Balla Gaye man daal mbër yu ndaw yi nga xam ne ñu ngi fi dagg seen licence CNG bu bu bu arène nationale bu ñu nee làmb tijji ne ñu dem régulariser te duñ bëre man maa ngi fi pour ñoom pour ñuy bëre rek. mais à part combat boobu noonu yan combat nga ci toftal ci biir journée boobu. waaw damay bañ a citer comme 20 combats la mën naa citer tudd kii du ma tudd kii te ñoom ñëpp ñu ngi ci 100 pour 100 Fatou Balla te ñoom ñëpp sama njaboot lañ comme damay yem ci grand combat bi rek Kérémen su Sidi jàmm gën ah avant grand combat mi ngi nekk doomu Yoff Modou Baye Fall mais boo bëggee citer te ñoom dañu xaw a bëri macha allah te ñoom ñëpp ñu ngi participer ci 100 pour bi bi lii amee ñoom ñëpp dañu toog dugg ci gur bi di ma masaw bu ma citer mën naa jum comme dañu xaw a bëri macha allah. Hmm. mais bi bi bi bi Covid bi ñëwee jot nga déggante ak ñoom masawu leen wax leen nañ waajaat toxa euh, bu làmb tijjee nga wéyal journée bi. waaw wax dëgg neex yàlla ñoom ñoo jël seen téléphone. Hmm. ne ma faat Balla Gaye ah comme ni ñëw nag ñu muñ te santee ko yàlla rek comme ñu suñu journée egg seegul woon ñu waajalaat déwén incha allah ñu ngeem bu tëgg day tax rek làmb ji gën a nit ñi gën a bàyyi xel daal Fatou Balla mais taxul mu metti leen torop torop. mais bëggoon nañ nag bëri ñoom la 5 août mais comme combat bi ñëwagul woon ñu waajal rek jëm déwén incha allah di wax CNG lu mel nii bu mu bu mu amati ci promoteur yi. ñu état tamit mu bàyyi ak lu làmb xel parce que am na yeneen man maîtriser ma yeneen kii ay football la xaw ma. Mm-hmm. li sécurité samedi ba ba ba esport boobu am. Mm-hmm. mën na sécurité làmb dimanche bi nga xam ne kooku daggoon na ni Samson joxe ay añu sécurité lépp lépp maa ngi koy seetaan mu koy wax. kon loolu sécurité bi demoon foofu mënoon nañoo ñëw sécurité di masse kon état na bàyyi xel làmb état bàyyi xel làmb te ñu nekk ci làmb osé wax ne ne état bàyyi xel làmb te ñu bàyyi suñu kuréel yu bari yi lu ñu dal dinañu dalaat muy kuréel yu bari dañu hmm. wàññi kuréel yi waaw. Ah, da nga gis ne daal làmb dafa dañoo waroon booloo doon benn say xàcceendoo dóorandoo. làmb dañoo waroon booloo ndoo dóorandoo mais association promoteur association amateur association da ngay dem ba sax yow doo bëgg a bokk ci benn association ndax ñëpp say nit lañ da ngay mujjee préféré toog sa coin di liggéey sa liggéey bu làmb jotee nga seetaan bu làmb jeexee nga dugg sa biir kër toog parce que association yi dafa bëri moo tax lii ñu dal nii lu gën a piree diir gis nga bu ñu booloo lu gën a piree diir dinañu dal. mais gannaaw benn journée boobu ci boobu nga doon yem wala boog am na yeneen yoo xamante nekkaatoon na sa xel. man damaa rêvé tëgg ay làmbi làmb mais ay mbër yu ndaw encore une fois nee naa ku gis Fatou Balla Gaye monté combat bu mag jël sa téléphone woo ko ni ko yaa ko waxoon man daal maa ngi si mbër yu ndaw man daal maa ngi sëñ Modou Niang bu jigéen maa mbër yu ndaw yi di di am sama wecce dem tëddi sama kër jàpp sama loolu daal moo gën a daal sa xel si <laughs> sama xel daal ah di wax nag ñu jàppale faat Balla gi ndax benn jigéen la bu nekk ci ñoom. Hmm. amul sponsor amul bonne volonté. taxaw ma di tàllal kenn loxo pour ñaan dimbal mais dafa jot làmb jàppale Fatou Balla Gaye encore une fois boo waxee ñu naan day dóor ku nekk li lay regg mi ngi ci sa biir néeg mi ngi ci sa doole ji man damaa defar ay ngeganaay ba sonn di jaay defar ay fleur ñi ma xam-xam nañ lool gàddu sama marqueur bi bëccëg ji ba sonn kon yaakaar naa dépassé naa fu may taxawee di sàkku ndimbal ci làmb mais nañ ma bàyyi xel. mbokk yi kon ngeen dimbali ko mu nekk jigéen joo jigéen ju mën góor la tàllalul kenn loxo. dafa liggéey ñafe ba am as tuutam ñëw bur koo indi làmb pour bëgg làmb yokk kon nag mbokk yi ku indi dara ci làmb bëgg làmb yokk dañ koo war a jàppale moom mu jëm ca kanam bu jëmee ca kanam làmb jëm ca kanam mbëri tamit gis ci seen bopp moom mu gis ci boppam ndax taxawal làmb dafa metti boo jëlee sa xaalis jox mbër mi mu tëdd ci nga war a dox wuti sponsor wala dox dem CNG bëgg a dox lijjanti yu bari bari bari du sotti kon mbokk yi ñu nekk ci làmb wala ñi nga xamante ni dañuy liggéey làmb nañ ko ñëw jàppale taalal ko loxo ndax mu jëm ci kanam soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. maa rek di santaat yàlla bu baax a baax. julli ci yonente bi sant suñu ñaari waaju ñoom ñu ñu ba ñu am xelu tegu ci yoonu siraatal musaxin feddali suñu cofet si sëriñ Babacar Si di wax axlu làmb booloo waat leen lii tey jii war na leen a ñépp yéen ñi doon def fi ay kalan kii kii la faral kii kii la faral dem ba am ñuy jël micro osé toog ci télé naan ki yàlla séddee wërsëg bi ki yàlla séddee wërsëg fii kenn soxorewu fi kenn dari ku gis dëgg wax ko ak lu làmb lañu booloo waat par parparloo promoteur bi ak promotrice bi bàyyiwu leen xel waaye am na ñoo xam ne ñiy parparloo promoteur bi bàyyi kii booloo leen xàccee ndoo dóorandoo Sénégal jëm ci kanam ah ñu santa yàlla baax a baax nuyu nag ñi ma bàyyi ginnaaw muy suñu waa kër gi yépp su ma limee li ma matale cent pour cent bi man ak yéen la bëggee gi fer duma bàyyi mbëri ndaw yi incha allah. mbokk yi gis ngeen ki nga xamante ni mooy Fatou Balla Gaye lañ fa dalaloon di leen jaajëfal di kontaan ci yéen bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf.